ci sa hoc euh, ci ci euh, assemblée nationale ñu buggoon a xam rek lan moo waral boobee démission ak euh, lan moo tax nga bàyyi ba démb nga nga nga annoncé sa démission. waaw xam nga commission ad boo jëlee règlement intérieur assemblée nationale ci article cinquante moom moo ko wax. boo demee ba 34 bi moo lay wax ni nga xam ne lañ koy doxee mooy day wax ni fukki membre la ak benn wax la opposition bi ñetti membre la ñu am benn bi day nekk ci groupe parlementaire benn bi nekk non inscrit beneen bi des muy juróom-ñett nekk ci ki nga xam mooy groupe majorité bi ñu dajee ñun nga xamante ni bureau assemblée nationale moo mën a joxe sañ-sañ ndogal pour que maanaam commission daje ñu wax ñun commission loi bi nga xam ne nekk naa ci vice président ñu daje leen pour ngeen def résolution ci commission ad hoc dèjà résolution boobu sax amul. Mhm. bi ñu ñëwee opposition bi c'est président groupe Serigne Cheikh Bara Dolly mi sama grand frère moom mu tànn ñi nga xamante ñooy toog opposition bi ci liberté et démocratie muy man ak Mame Diarra Fam. Mhm. ma laaj ay président ay miiru ñu groupe parlementaire mu ne ñoom pareeguñu dèjà foofu liggéey bi tàmbalee yàqoo. te résolution bi nga xam moom la ñu santoon defuñu ko woon foofu kon commission peut-être que taxawoon nañ ko ci loo xamante ni nekkul lu jaar yoon. ñu ñëw plénière nga xamante ni tey plénière bi moo doon ñëw pour rectifier liste yi bi ñu ko rectifier liste yi automatiquement dañoo jox ndigal plénière jox ñu ndigal ni na ngeen daje bi ñu dajee tamit dañoo samp li nga xam mooy bureau bi ay muru ñu ngi ni mooy président groupe parlementaire moom di disende na boppam pour mu nekk président commission ad xam nga na ko comme moom yéen ko moom te maanaam moom euh, euh, li may faral di wax naan képp koo xamante ni yaa ngi jël li nga moom jëlaal li nit moom bu yàggee boo ko lekkee da ngay fër. Mhm. c'est la première fois le président groupe parlementaire benn boo ko yaakaar parce que di xëccoo président commission ad hoc. Mhm. xamuñu bon après maam Diarra Fam ne ko comme jël na ko te moom kii man demal ànd demal nekk vice président commission ad hoc vice présidente bi après ñu jël euh, ki nga xamante ni mooy rapporteur bi muy Sira Ndiaye. mu wax ñu ni danaa ànd ak bureau bi dem ci Moustapha Niass pour jël li nga xamante ne mooy document bi siis bi yónnee assemblée nationale dèjà loolu defu ko muy benn ba muy dem moom doo nga dem ñu jàpp ñoo mardi bi ñu ñëwee wax dafa génne leetar ci benn enveloppe bu kaki bu mag liir ko diiru cinq minutes ñu baree bari sax xamuñu loon liir hmm. man dégguma tubaab man dama waroon am sama jot mu jox ma ko ñu liiral ma ko ma traduire ko en wolof xam li nga xamoon la ñuy toppee ñi nga xam mooy député yi. Mm-hmm. loolu mooy yoon ndax tradition am na assemble assemblée mm-hmm. parlementaire yi yaakaar naa même mën na leen di woo ñoom ñuy fekk loolu di ko liiral ñi nga xam ne dégguñu comprendre ñu deful loolu. benn député bu bokk ci foofu noonu ci commission bi gisuloo li nga xamante ne maanaam mooy lettre bi da koo liir rek est-ce xam nga boo xam ne la muy liir moom la wala moomu du moom. te jàpp naa bu mu dajee kenn ku nekk waroon na la koo joxe mais à mais nga xool ko foofu mu liir ko pare jëlaat dugalaat si enveloppe teg daan ni léegi nañ jàpp calendrier alxames la ñuy def daje pour déglu député yi ma ne ko noonu mu ne ku ko soxla ñëwul sama bureau ma ne ko noonu parce que ñi bokk si commission bi kenn ku nekk war nga ko am wala nga liir ko wala nga lu ko mais loolu nga yàkkamti mu ne ñoom dañoo bëgg a dem investi dañoo dem investir seen i parti kon mel na ni seen i parti mu leen gën a ñor li nga xamante ni mooy liggéeyu ensemble national ah bi loolu amee jàppante am na fa man ak moom jàppante am na fa ba ay saaga jub fa euh, mais muy loo xamante bettu bettuma si moom aussi ndax xam nga président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar boo xam ne c'est la première fois ñuy def section unique assemblée nationale 2021 2022 ñu fàttali laa liir sa tur kooku yaakaar naa ne gàcce la ci assemblée. te ku ne xam na ne tey bi ñu ubbi section unique bi <laughs> dañoo jëpp dañoo tëboon tur ay miiru ngi liiru ko ndax bokkuñu boolewul si liste bi loolu rek na defet bon après ñu jàppante fa bon voilà euh, bon bi ma demee ba nga xamante ni xam naa ni kii pariwul pour liggéey pariwul pour leeral te mënuma nekk moom si commission comme moom wérul te xam naa ni man am na loo xamante ni mënuma ko c'est préféré man démissionner si commission ad bi comme ni ma ko yoon maye. lan nga gis ba pare ñaareel bi gis naa ni le président vice président comme groupe parlementaire aussi. Mhm. muy ki nga xamante ni mooy Adji Mbargane Kanouté moom tamit bokk na ci commission bi. Mhm. président ko groupe parlementaire ak vice président groupe parlementaire yëpp nga jëleen dugal leen ci benn commission ad hoc mel ni yeneen nit. Mhm. moom ci boppam bi mu jëlee kàddu nee na moom bi mu dégloo ni lire dossier bi jàpp na ni dossier bi taqalut ki nga xamante ni mooy BIA député BIA moom ki mu taqal mooy député Sall. kon nañu dindi benn balaa nu kiraay député bi bàyyi beneen bi <laughs> mais ma ne loolu mënut a parce que document bi. ñoom ñaa ñëpp la cité. Mhm. kon mënuñu dindi kii di dindi kii. mais honorable lan moo tax toujours lenteur bi am ci ci boobee dossier d' autant plus na yeneen député yoo xamante ni am na ci luñ leen dafa gaaw ci mbir mi am na mhm. ñoo xam ne sax prison lañ yëkkatee li nga xamante ni. waaw xam nga loolu rek mooy lay wan ne dafay am deux fois deux mesures. état bi Sénégal surtout nguuru Macky Sall ak Assemblée nationale lépp loo xam dafa laal si opposé dootu koy gaawal dañ see yàkkamti mais lu laal si ñoom danañu jéem a maanaam vagg-vaggal ak layaam layaam yi ba duñ ko def wala buñ koy def tamit dafay fekk déjà trop tard ndax dossier bi ban ko waree def yàgg na mais si ñoom la tagee woon bi nee ba nga amuñu pexe ci lañ ko doog bi mais bi nga xam ne jàpp na nag ni ajjuma comme tey ji lañ war a daje ñoom diglu ñaar député yëpp ñaar député yëpp koo xamante ni est-ce que kenn kaa ngi si réew wala nekku fi xamoo fu mu nekk nga jëf calendrier automatiquement fi nga toog te contacté woo ñi nga xam ñoom nga war a déglu yaakaar na loolu jaaruwul man nag bi nga xamante ne xam naa ne ñii fi ñu jëm baaxul bëgguma aussi tamit ëllëg ñu dem ba ensemble yi suñuy doom ñëw fi suñu sët ñëw fi ñu ne assemblée nationale treizième législative bi yow Cheikh Abdou Bara Dolly fekkoon nga fi ñu dindi député mbalaa du kiraay ñaar député tegutoon si yoon nga ànd si loolu man yaakaar naa loolu moo tax euh, ma préféré def li ma règlement intérieur bi démissionné président Moustapha Niasse euh, yónnee na ma lettre accepté sama démission ci ci ci li nga xamante ni mooy commission ad hoc bi bon léegi nag li yoon wax mooy commission mënut liggéey te membre yi matuñu loolu loolu la yoon wax ndax mhm. onze membre la waaw bu benn membre manqué dañoo war a remplacer mhm. remplacement bi amagul est que ñoom dañuy continuer seen liggéey wala duñu continuer seen liggéey kooku ñoom la concerné est-ce que bu ñu defee maanaam seen di seen di seen délibération est-ce que dana valable juridiquement ñan ñi ñi nga xam ñoom la ñuy tuumaal ak seen i avocat ñoom ñoo koy xam man daal li ma xam mooy bokkoon naa ci commission bi bokkutuma maa ngi leen di xaar plénière lépp lu ñu indi plénière te du dëgg du yoon dinaa taxaw wax ko ba nga xam ne askan wi dégg nañ ko ndax man askan wi ñoo tax may liggéey askan woowu nag fi ma teg ak lin ma defal mënuma leen a fay moo tax mënuma aussi wax leen loo xamante du dëgg te mënuma tamit di layaam layaam ko nu gaa yi defee. waaw comme sàggante am na ci dossier bi déjà ñu ngi ci investiture yaakaar nga ni dossier bi mun na am poursuite. ah oui war na mën na am poursuite parce que li tax mooy xam nga bit si Sénégal moo ëpp solo dossier bi. te biir Sénégal cinq mille cinq cent milliards ba tey fi may waxee yow càmbara gun ko te heure bi fekk ñu war koo càmbar lu ko war a mooy investir yi moo ko war a mooy politique bi kon hmm. politique moo ëpp doole li nga xamante ni maanaam mooy liggéey bi loolu ay caaxaan la fi nga xamante ni bi ñu defee ubbi ak section unique bi rek automatiquement da waroon jàpp calendrier pour defal maanaam commission yi pour jéem a càmbar bi mais dafa nekk retard voilà